rahim ginnaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ak yéen ci seen dars bi ñu baaxoo ànd ak yéen tey ñoo ngi ci ñetteelu leçon muy tàmbulikaayu téere bi muqaddima defoon nañ benn muqaddima ci xisnul euh, muslim ñaareelu leso bi moo nekkoon askarul istiqaas maanaam askarul istiqaas buñ ko waxee mooy nit ki ñaan yi muy def bu yeewoo mi na naw mi ci ay nelaw tey nag ñu ngi dugg ci deuxième euh, askaar bi te mooy duaa u lubsi saw bi maanaam duaa u lubsi saw bi buñ ko waxee mooy nit ki ñaan gi muy ñaan jamono yi nga xam ne mi ngi sol yére ndax waxoon nañ ni xisnul muslim li ko tax a jóg mooy ak aaru la maanaam ngànnaay la ci nit ki diggam ak seytaane ndax euh, nit ki lépp lu muy jëf rek dafay lëkkalu ay ñaan yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko jagleel mooy tax foofu ay takk ndoom baaki ki téere du fa mën a ak ay sango ay saafara ak i dem ci sëriñ ñu gis ñëpp ñuy dem ci ay sëriñ di sangoo ay saafara wala di takk ay ndomba ñàkk a xam rekk la ak itam ginnaaw bu ñu xamee sax ñàkk a jëfandikoo na waaye képp koo xam ne yàlla dimbale la nga dimbale la nga xam di jëfe na yooyu yëpp doo ko doo danga koy teg fee waaye danga koy remplacer ñaan yi am na ci ñoo xam ne ñàkk a xam moo tax ñuy dem ci sëriñ si di takk ay xaaw ak sangutu ak di wuti ñaan amna ci ño xamni nak xam nañ waaye seen bakkan manam xam nañ ni li depp wut ak sunna waye li tax ñu diko def moy ñak dund sunna ndax yow mi nga xamni yaangi dund sunna bay jëfëndu sunna amna ñu nekk sawet ñoo xam la nga jang ba xam ko sunna jang nañ ko ba xam ko sunna waye jëfuñ ko aw leen gis ko xamni day jang ba xam lu bari waye day tak ay ndombaki téré wala muy dem ci sëriñ si wala muy def yoo xam ne ay biddaa la kon yow mi nga xam ne yàlla dimbu ne la nga xam sunna danga war a jëfe sunna kon booy sol yére lan ngay wax dangay wax alhamdu lillahi mooy sant yàlla allazi yàlla ma nga xam ne kasaa nii moo ma wodde wala moo ma solale hada saw bi la yére maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma waddu wala moo ma solal bi yére ndax moo la wërsëgal nga nga nga am ko moo tax mu ne yàlla mi nga xam ne moom ma solal bi yére waaye warasaqanihi moo ma ko wërsëgal waaw yàlla moo la wërsëgal yére bi min ci lu dul xawlin menn pexe min nii moo xam ne dafa bàyyi ko ci man wala quwwatin tey du genn kattan goo xam ne maa ko def maam daal def mu benn effort wala ay pexe ba am li waaye yàlla ci boppam moom ko wërsëgal waaw kon amul benn yëngatu bu ma def wala benn pexe bu ma def ba nga xam ne jot naa ci li waaye yàlla moom ko wërsëgal kon tey bii mooy benn ñaan bi nga xam ne moom la ñuy joxe alhamdulillahi alladi kasaani hatha thawba wa razaqanihi min gayri xawlin minni wala quwa alhamdulillahi alladi kasaani hada thawb wa rasaqanihi min gayri xawlin minni wala quwatin boo xoolee ñaan gi nag dañoo wax ni saxaabi bi nga xam ne moom ci lañ ko jële mooy Muaz ibnu Anas al ansaari radiallahu anhu dañoo wax ni moom moo ko ni boo demee ci téere yi sunna yi danga ko cay fekk lu mel ne an nisaa yi Abu Daawud ak Tirmizi yooyu yëpp da ko ci fekk ak Ibnu Maaja dañ ci fekk hadis bi kon muy eh, ñaan goo xam ne ñaan gu ama am solo la muy ñaanuk nit ki buy sol yére ñaanuk nit ki buy sol yére kon jamono yooyu sol yére rek ñaan gi ngay wax xam naa hadis bi ci eh, xam naa ñaan gi ci topp itam mooy booy sol yére bu bees ndax nit ki buy sol yére bu bees li muy wax bokkut ak buy sol yére bi nga xam ni bu màggat la baaxoon na ko sol waaw loolu itam nañ ko bàyyi xel yow mi nga xam ni yaa ngi sol yére bu màggat li ngay ñaan bokkut ak booy sol yére bu bees loolu lépp dañ ko mat a xam te itam ñaan yi ngay ñaan guddut maanaam ay baat la yoo xam ni baat kii la yu gàtt la guddut nekkul ñaan gudd ba nga xam ne daf lay solo ci ak mokkal waaye boo ko répété ay cinq fois ay dix fois rek da nga koy mokkal te nit lu mu yàgg répété di ko def ko defaat da koy mokkal kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa xam naa daa mel ni eh, fii lañ bëgg a yem wala ñu continuer aywa kon mbokk mi nee <laughs> ñu continuer kon ñu teg ci beneen eh, ñaan gi nga xamante ni bii ni moom itam nit ki daf koy wax buy sol yére bu bees te mooy bii ñuy bëgg a wax nii te mooy allahumma lakka allahumma yow yàlla lakka ñeel na la alhamdu cant anta yow day yàlla ka sawtaniihi maa ngi lay sant ci kodd gi nga ma kodd ci yére bi koddaay li ma kodd mhm. allahumma yow yàlla lakka ñeel na la alhamdu ak cant anta yow de ka sawtaniihi li tax ma lay sant mooy lii nga ma wadde te mooy yére bi nga ma wërsëgal asaluka maa ngi lay ñaan min xayrihi ci aw yiwam wa xayri ma ak yiwu la nga xam ni sunia maanaam defareef na ko lëxoo ñeel ko waaye wa aunfu maa ngi muslu ko ci yow min yi ci aw ayam wa sharri ma sunia la ak ayu li tax ñu defar ko kon boo xoolee ci biir hadis bi wala ci biir ñaan gi asaluka min xayrihi wa xayri ma suni'a lahu lim ci jullu mooy maanaam yiw yiw yére bi yiw yére bi ma ngi lay ñaan borom bi subhaanahu wa nga defal ko ci yiw waaye tam yére bi féeg mi ngi des ci moom waaye yére bi itam féeg mi ngi set mu di ko sol ngir faj ca aajoom mi ngi lay ñaan yiw woowu di nekk ci moom bu dee wa xayru su suni alahu mooy li tax ñu defar yére bi nga xam ni dëruriyaat dafa bokk ci dëruriyaat yi nga xam ne mënta ñàkk nit ki sol yére lu tax ñu defar ko mooy lan ngir nit ki sol ko ngir fecc aw tàngoor wala ngir nit ki sol ko ngir fecc ab sedd wala ngir nit ki sol ko ngir fecc awraam mu ne yooyu yëpp mu ngi lay ñaan mu nekk aw yiw kon li tax ñu defar yére bi ah? mooy lan mooy nit ki da ciy fekk ak sedd walla aw tàngoor wala ay awraam yooyu yëpp moo tax mu ne wa su ma waaye mi ngi muslu ci yow ci aw ayam waaw ci aw ayam hmm. kon li bokku na ci li nga xamne mom la nit ki di wax bu fekke ni mi ngi sol yére bu bees ñu baamu ko allahuma lakkal hamdu anta kasawtanihi asaluka min khayrihi wa khayri ma sunia lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma sunia lahu kon boo xoolee ki nga xam ne moo nettali xadis bi wala saxaabi bi ñu jëlee xadis bi mooy abu said al xudri saad ibnul malik radiallahu anhu ci lañ jële xadis bi kon xadis bi boo xoolee abu daawud nettali na ko ba tey tarmizi nettali na ko ak ku ñu wax Bagawi hmm. boo demee ci muxtasaru muxtasaru muxtasaru muxtasaru shamailu tarmizi encore da nga ko fekk lil albani hmm. ab téere la muxtasaru shamailu tarmizi al albani wala lil albani danga ko ca fekk hmm. kon yére bii daal ngay sol bu bu li moy li nga xamné mom ngay ñaan ñu dellu kon xamna yamani fofu rek di baye xel janga gum nañ fi ñatt hadith moy nit ki bu yeewoo iya ci ay nelaw lan lay wax bobu moy hadith bu njëkk bi nga xam mo moo jall ginaaw ginnaaw bu ñu ab muqaddima ci téré bi ñaareelu leçon bi mooy tey dañoo boole ñaar ci ay ñaan muy jamono yoo xam ne nit ki mu ngi sol yére li muy wax li muy wax bu dee yére boo xam ne nekkul bu bees waaw bu fekkee ne bu bees la li muy wax kon dafa am foofu différent waaw loolu ci la bokk ba tey itam euh, du'aa liman labisa sawban jadidan ba tey bokkaat na ci geneen ñaan goo xam ni itam moo gi jàll léegi ñoo yem bu fekkee nit ki mu ngi solo biir bés ba tey dana ñaan lii tub lii wa yuxlifu llahu la tub lii wa yuxlifu llahu taala gis nga ñett baat rek la gi ñaan lii wa yuxlifu llahu taala tub lii lan mooy lan mi ngi bàyyi ko ci ak ràpp waaw ak ràpp kon feeg yére baa ngi dund ñu koy sol ba keroog muy ràpp loolu mooy baatu tubli wa yuxlifu llaahu lim ci jullu mooy na ko yàlla wotteel lu gën yére bi waaw tubli na ràpp jàmm wa yuxlifullahu taala mooy na ko yàlla wuutale yére bu gën bii tub lii wa yuxlifullahu taala kon booy sol yére bees ñaari baat ñett ñeenti baat ñett ñeenti baat sax la tub lii wa yuxlifullahu ñaari baat la rek mën nañ ne ñaari baat la euh, euh, saxaabiyul xadis nag mooy abu saidul xodri radiallahu anhu kon tub lii wa yuxlifullahu taala tub baat yu gàtt la lu yomba xam yére nit ki buy sol yére bu bees rek na daal ñaan loolu mhm. boo demee ci eh, Abu Dawud danga ko fekk Sahihu Abu Dawud encore danga ko fekk kon yooyu yëpp boo gisee ñuy tegtaloo ci yooyu dañuy wane ni ñaan yow yu wér la yoo xam ne yu jóge ci sang bi lam yonente yonente bi yonente bi Muhammad waaye jëm ci ci xeet wi jëm si ci xeet wi ba tey nit ki bu fekkee ni dafa summi dafay summi yére bi lan lay wax bismillah kon booy summi sa yére bismillah wax bismillah kon jamono yoo xam ne yaa ngi sol yére bu màggal am na lay wax booy sol yére bu bees am na lay wax waaye booy summi sa yére lay wax bismillah saabiyul xadis mooy ali ibnu abi taalib ak anas ibnu malik radiallahu anhuma waaw kon loolu mooy li nga xam ne lañ waxoon ne nañ ko fi jàllale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa